malaktu bi rabbi moo mbokki Touba ak li ko wër da leen a jàmm fii ci épicerie Anglais Serigne Fallou bii la épicerie yàgg wër produit yi gën à travers le monde di ko andil fii ci dëkk bu sell bii di Touba moo dellu si waat ngir gën a satisfaire sa clientèle andi leen xeeti café yu am qualité meew chocolat beurre biscuit boisson ay toute façon de jus naturel ataaya bàyyi wuñu ko waaye nag fruit yangook pomme orange banane raisin ba ci papaye ci sunu partie alimentation ceeb diw sëg baa nga fa am nañu fa partie charcuterie ci xeeti saucisson viande hachée fromage ba ci norvégienne am nañu fa également partie cosmétique ci xeeti parfum ak diw yaram yu tarkal ñu foofu de ci épicerie anglaise xëñ fàllu am nañu fa pâtisserie bu leen di waajalal xeeti croissant nem fataye beñe yu neex ak yeneen ak yeneen waaye nag bokk yi fast food bangok cay suñu di bi ganaar suñu méchoui pizza hamburger shawarma sandwich brochette am na fii ba viande li fi nekk lépp kenn mënu ko lim ci prix yu xéewale lool avec la disponibilité de livraison à domicile ña nga nekk foofee ci diwaan bu Touba ca wetu kër Serigne Abdou Fatah Mbacké Falilou sur la route de la grande mosquée de Touba gérant di El Hadji Fall Ndiaye jokkoo ak ñoom ci 77 925 40 13 suñ deuxième place bii di épicerie Kër Mame Diarra ma nga nekk foofee ci diwaan bu Touba usine glace sur la route de Ndindi borom bekooni sudaar ci station Olabi ngeen ñëw ci 77 187 46 84 épicerie Angle Serigne Fallou ak épicerie Kër Mame Diarra ñu leen di ñaanal màggalu jàmm